li waxtu wi jàmp-jàmp ci waajtaayal màggal Touba atum 2020 teewut ba xalif général des mourides cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké daal di séqi jéego jóge daarul ak si fii ci complexe Hizbut Tarqiyyah ni mu ko baaxoo defee ci weeru safar wu nekk loole nag bu mu egsee ci barab bi fekk na mbokku taalibe yi amuk waajtaay ci baral ci kilifteefuk Serigne Atou Diagne daal di ko seenu waaye tamit teral ko dalal ko ci résidence bi nga xam ne moo nekk fii ci complexe bi moom sëriñ bi ak délégation sëriñ Moussa Nawel daal di jiite naka jekk protocole bi bi ñu agsee ci barab bi nag mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci njàngum xasaayit ci yëkkati dugal nañ seen i kàddu ci njàng moo xam ne ànd nag dal dooree ko ci ndigal loo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko joxe diir bi nga xamee ne mbas mi na fi muy xasida bi xaq wajikal karim waaye tamit toftal ci xasaayit bu ruum naa loolee lépp ku tedd kii mu ngi koy teewlu bu baax a baax noonu lañ daal di saafonteeg mbooloo mi waaye itam ginnaaw bi bi waxtu tàkkusaan jotee sëriñ bi ci boppam moo jiite julik tàkkusaan ci jàkk ji nga xam ne moo nekk fii ci complexe bi mbokku taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci barab bi dëkkandoo yi ñëpp daal di buur fa saasa dikk fii ci complexe bu tarxiya ngir rek saafonteeg ak sëriñ bi seen xar kanam taar ak mbég wu tar feeñ ci noonu lañ ko àndeek sëriñ bi ba ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi daal di yëkkati jotaay bi muy jotaay woo xam ne nag góor jigéen mag ak ndaw mbooleem ñi nga xam ne nekk nañ ci complexe bi ak li ko jege daanaka fexewoon na njëkk ba teew ci ñii di yëkkati seeni kàddu ñii di seenu ñii sax di yéeg ci makkaan ngir rek mën a jotee ci xaar kanamu sëriñ bi ginnaaw bi la ñaanal ki nga xam ne moo jiite barab bi muy sëriñ Atou Diagne moom itamit mu fës ci kanamam ak cant waaye tamit mbégte wu rëy woo xam ne mënee ko misaal